piste entre le PS et le PDS su ngeen fàttaliku entre man mi ak Alé Lo 2022 élection euh, astafurlah waa 2022 2021 élection locale yéen a ngi fàttaliku problème mu liste Pikine yi ak problème mu liste Kédougou où la Cour suprême a encore réitéré interprétation wu notion liste complète et pourtant ci législative yi def na leneen loolu la ñuy bañ dañuy fàttali conseil bi ni ko la muy def nay am constance nay am cohérence nay am permanence parce que loolu mooy seen doole loolu mooy tax ñu respecter leen donc suñu premier appel ñun coalition xalifa président c'est à l'endroit du conseil constitutionnel pour que cette fois-ci que ñu mat li ñu doon que ñu matal li ñu leen xaare que ñu mottali li ñu leen yéene c'est-à-dire qu'il nous montre que dans ce pays nu som dans un état de droit et que institution bu mu mënta doon lañ la dénk di nga ko def en toute indépendance en tout cas ñu ngi leen di fàttali seen bopp di leen fàttali seen wareef di leen fàttali ni ñoom ay sénégalais lañu par de la robe yi ñuy sol e que am nañu yaakaar ni ils diront le droit cette fois-ci et dire le droit c'est rejeter la proposition de loi de d'annuler la proposition de loi présentée adoptée par l'Assemblée nationale et donner raison à la requête des deux groupes de députés que nous félicitons en passant ñu ngi féliciter ña groupe député yépp Assemblée nationale ak député opposition seen taxawaay seen jëfit seen melokaan rafet na en tout cas nous sommes très fiers de et nous sommes heureux de voir que sur l'essentiel jotee quelles que soient les différences et les divergences nit ñi daañu jàpp loolu doon say xeexandoo ko en tout cas cette fois si c'est le conseil qui est interpellé ci li nga xam ni moo mën a sauver suñu dëkk sauver suñu réew sauver sa démocratie moom mooy prononcer l'annulation de la loi, de la proposition de loi portant report des élections fi ñuy jëm wax ji bari na trop xam naa tey ci suba yéen ñëpp fumba na ku nekk seen xel a ngi ci li ñuy liir ak dégg mais yooyu ay spéculation la parce que dara wóoraguñu ci mais ah foo jamais avoir raison trop tôt xam ngeen fi ma waxee de xam ngeen li may wax xam xam laa wax dama ni du loi d'amnistie rek li ko wund ak li ko lal ak li ko sooke ma ne dama ne lu leer laa wax dama ni dans ce pays malheureusement faut jamais avoir raison trop tôt ou très tôt la ñun mu jur ñu un bashing de trois mois de de juin à septembre yéen ñëpp kenn du ko fàttali ko parce que lu ñu gëm la man dama ni leen fàttali naa leen ko 88 am na ñu juddoogul woon ci yéen dix 96 98 mille 2018 2022. yenn j'étais même en prison, nous avons toujours été au dialogue. Tant que l'État du Sénégal, tant que l'intérêt de la nation est en jeu, sont en loolu laa gëm defuma ko pour sama bopp dama koy def pour sama réew lii ñuy ngun nguni ak wënd nag xam nga doomu giléem nag mën na juddoo ci waañ wante du fa màgge du loolu de li ci kanam rawu li bët gaañi ma ne bu kenn foye xelu kenn dama wax ni réew mi su wootee dialogue bi ngeen ma wax naa ci wax dialogue bi li ma ci wax lu leer la dama ni man dialogue laa gëm mais contexte bii ñu toll bala ñoo wax dialogue nañu wax d'abord reportu élection yi ba pare nañu xeex ba élection report yi bañ am ku ñu woo ci waxtaan boobaa ñu apprécier loolu laa waxoon de loolu laay waxaat may wax na seen seen collègue yeeg yi wax naan bi ñuy def concertation ou consultation report bi maa nga woon pale ki ko wax kenn ki ci télévision Maïmouna nduur Faye la ko waxee ak ñeneen damay wax lépp xam nga man nag euh, malheureusement je suis un bon grand yow fois quoi je dis les choses ma ne amul nekkul kenn woowuma kenn boolewuma kenn gisuma demuma pale waxuma téléphone ci report que ce soit clair net et précis nit ñi suñu bëggee xam nañuy laajte moo gën ñu sosal nit ñi man dama ni la xam nga wax naa ko fii ci émission Assane Gueye laa ko jikko wax 2000 lan su ngeen koy fàttaliku dama ni su ma waree dem palais au nom de l'intérêt général duma làqatu damay dem bëccëg ndara kàmm dem taseeg Macky Sall c'est le président la République su ma fa génnee je dirai aux Sénégalais j'ai été répondre à une invitation du président de la République lii lañ fa wax moi je suis un républicain je ne connais que l'État Macky Sall peut tous les defu que vous c'est le président la République jusqu'au 2 avril jusqu'au 2 avril ku mu fi signé rek nga falu te gaa yaa ngi rang alors donc yooyu bu ñu koy nangooti ci suñuy diggante nañuy xam principe di lal suñuy dialogue bi dama ni pour l'instant ñun talaguñ ko ñun xalifa président li ñu fokk mooy xeex bi ñuy xeex contre le report et on continue à soutenir toutes les initiatives c'est pourquoi nous sommes dans la plateforme F25 Nous sommes dans la plateforme M24 et nous soutenons toutes les initiatives de la société civile dans ce sens-là. Nous sommes partie prenante. Cheikh Gueye dans le F25, euh, euh, le président Omar Cissé est dans le F24 et nous sommes, moi je suis dans le groupe des candidats et on participe à tout. xeex bi yéegandoo dóorandoo la je fais toutes ces pressions pour que nul n'en ignore dama ne ça fait vingt cinq ans vingt quatre ans que je suis dans l'opposition mille ba léegi bi PS daanoog léegi maa ngi opposition mandat bu ma am ci opposition laa ko amee lu ma doon ci opposition bi laa ko amee lu fi jar daw bay daanu donc je veux que non que yenn yenn saa yi ñuy waxante tuuti dëgg vous me connaissez pas parlant ainsi mais yenn saa yi ma dellu Grand Yoff ga ma dëkk nag mel na ma war a mel donc je que les gens comprennent que fii amuñu lu ñuy laax amuñu lu ñuy nëbb ñun lu ñuy def day leer si je devais voir le président Macky Sall je dirais que je le je ou je vais voir donc kooku dama bëgg ñu weesu li xew tey li jot tey mooy report bii la ñu àndul report bii la ñu d'accordul et ce que la communauté internationale fait est un soutien à toutes les initiatives. Et nous sommes solidaires de tout, toutes les initiatives, de toutes les composantes politiques et de la société civile. C'est pourquoi je réitère l'invitation à tous les membres de la coalition, nous à la marché de demain ou à la manifestation de demain pour qu'elle soit une réussite. Mani, réunion Kobok. am na lu kenn dul nangu lii bëgg fi xew mënul ne lii bëgg fi xew warul ne le conseil constitutionnel devra s'assumer le conseil constitutionnel devra casser cette proposition de loi parce que nag li ñëpp d'accord mooy le 2 avril le président Macky Sall ne sera plus président de la République du Sénégal loolu mooy dëgg loolu mooy texte yi kenn mënu ko changé par une loi même si celle-ci était constitutionnelle dégg naa ñu naan c'est une loi transitoire yooyu xel mënu ko nangu